yow nga bëgg a nax ay sénégalais bëgg a saaga Macky Sall sàcc ñeneen ñi xëy na yàlla may na leen xolu muñ loolu mais man du ko muñ du ko muñ moom nee am na rapport moom moo ko wax mais na ko indi léegi nee na dañ ko bëgg xañ pour mu nekk candidat bu fekkee lii moo koy xañ mu nekk candidat nga jàpp ni que guerre over bi xale yi di wax nañu bàyyi naxante yi nañu bàyyi yàq xelu ndaw ñi ñun ki ñu àndal ñun ki ñu àndal ci mbot lañu àndal moom ñun ki ñu àndal ci njub lañu àndal moom ci liggéey lañu àndal moom man neew ma sama leader transformé na Sénégal waxuma loolu mais amul benn pàcc booy jël ci li ñuy dundee boo xam ne fekk ko un yóbbu ko quatre amul léegi nag pour tëj ci Ousmane Sonko jàpp naa ni xeex bi du xeexu affaire xeex bi du xeexu benn bokk yaakaar xeex bi xeexu citoyen sénégalais yëpp parce que nit nit nit koo xam ni li muy wax lépp ay fen li muy def lépp dara du ci dëkk li muy wax yépp gëmu ko li muy woote nekku ko du ci xam-xam du ci jaar-jaar du ci man-man du ci lum mu leen wan kooku leen war a puus parce que fépp fu mu jaar ab biir na ko énaa bi génne foofu la magistrat yi génne ñu ko dàq jàng fuuf ñoo fa nekk ñu ko gën a jub fuuf ñoo fa nekk ñun jàppul ci benn dëkk ñun ñëpp ñu ànd respecté justice sénégalaise mais moom ñu nekk loolu gën ci yées moo ci gën a yées le 23 juin fan la nekkoon.